ahmadu baas jógal taxaw ngir soññi waat li ay texew abdul ahad jàngal ca kaw soññi màggalug safar estati di safar bul ko wute benn yoon ak elhaj muhammadul amin njaay xaadimul muslimiin bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawina walil wali bokki téléspectateur u Faaida TV fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi Sénégal ak àdduna bi yëpp ñoo ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu liñ leen ko digee woon ci statut di safar noonu lañ ko fa yéenee defee ñuy ñaan ñu àggale ko ak jàmm mbokk yi tey la benn fan ci weeru safar wi nga xam ni weer la woo xam ni suñu ko tuddee rek xel yépp dafay daal di dem ci fukki fan ak juróom ñett ya muy dix-huitième jour bi muy dix safar lu tax xel yi di ci dem mooy jàmbaar ju mag jooju nga xam ni liggéeyal na lislaam liggéey boo xam ni borom bi subhaanahu wa taala bég na ci gërëm ko ci ràng ko ci ay mbidaay yéege ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne moom la doon liggéey lit bég na ci gërëm ko ci ràng ko ci ay médaay kooku bokk yi mooy kan mooy ki ñëpp xamee tur bi nga xam ni moom rek moo ko amee te mooy a Cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasul le serviteur du cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk yi ku ne xam na ni weer wi weeram la lu tax mooy weer wi nga xam ni ci la génne woon sauver l'islam fekk diine ci jamono boo xam ni daanaka mën nañ koo misaale ni boobu lislaam noon yi tër nañ ko ba jël paaka ba teg ci put gi ba dara desul lu dul rendi ko mu daal di jeex takk jàmbaar jooju daal di jóg ngir sauver li nga xam ni mooy lislaam bi jël bakkanam joxe moom ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul loolu mi ngi ko defee ci 18 safar moom ci boppam moo taarixal bisu génnam wax ni xarajtu yowma sabti thamini achar li xidmati lmuxtaari fi chahri safar génn naa bisu samedi yemboog juróom fukki fan yaag juróom ñett ngir lan ngir liggéeyali ki nga xam ni mooy almuxtaar muy yonent bi yàlla tànn ci kaw mbindeef yépp génn naa bisu samedi dëppoog dix-huitième jour ci weer wan ci weeru safar kon cheikhul xadim radiallahu anhu ci boppam moo ñu dimbali ci moom kañ la génn pour dem ci woo boobu nga xam ni colonialiste yi jamono yooyu ñoo fi nekk coloniser réew mi gouverneur bi nga xam ne nii moo doonoon gouverneuru ndar jamono boobu convoqué ko ay yoon moom cheikhul xadim muy xaar ndigalu boroomam bis bi génnee nag ci ndigalul yàlla pour dem ñu war ko exiler génne ko ngir mu liggéey li sallallahu alayhi wa sallam ngir bañ lu ñu bari nangu bis boobu mooy dëppoog li nga xam ni mooy 18 safar moo tax mbokk yi safar boobu incha allahu taala danañ ci dikk lan moo tax cheikhul xadim bis biñ ko génnee teg ko ay natt yu méttee métti moom mu wëlbati ko di ci sant yàlla lan la ko yàlla defal ci bis boobu nga xam ni ci zahir bis bu metti la bis bi mu tàbbooyee ci natt yi moom mu wootee ci sant yàlla ak yan xéewal la ko ci yàlla defal xéewal ya nan la war a toll ba tax moom Cheikhul Xadim jëmmam ju baax ju sell ju tedd jooju xeeb na ko ci sant yàlla ci xéewal yooyu mu ko defal waaye mu woo ci mbooleem jullit ñi ngir ñu santle ko yàlla ci xéewal yi mu ko defal ci bis boobu xéewal yooyu xajul ci àdduna tudd ko waaye dinañ ci indi tuuti dinañ leeral tamit incha allahu taala naka lañ koy santale yàlla ci bis boobu di bisu màggal naka noonu dinañ indi sant ban dayoo la am ci lislaam ci alquran ak sunna moom sant yàlla ban dayoo la am ak lan la ca boroom di jële su ko defee yooyu yëpp ak jëm nii màggal nu ngi koy defee ak tuubaa gi nga xam ni fa lañ koy defee lañ mooy wormaa wormaa jën ko war a jox ak ñan lañu soxla ñu ñëw ci bis boobu bokk yëpp dinañ ko préciser waaye balay booba suñu deuxième euh, vidéo danañ ñëw laaral leen safar ban histoire la am ci lislaam muy jëmmi weeru safar ci boppam muy li nga xam ni mooy diggu gàmm ñu jox leen dig daje subaak jàmm ci suñu deuxième vidéo di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa boo bëggee listixaar bu gaaw te wóor dëppoo ak diine wooteel ci numéro bi affiché di 77 197 95 37 77 197